damay sant yàlla comme que may Madické Keña bi loolu xëccoo moom la këram mel nii man damay sant yàlla man Fall te loolu xëccoo réew mi naan day defar réew mi nii de sant rek. <laughs> <laughs> xasida yee bëri noonu liñ jàng si xasida moo bëri de liñ jàng si xasida moo bëri. nañ ma bàyyi man dong may jàng xasida maa ngi leen di tuuba ah. nañ ko il faut <laughs> ah kon de góob na lim góob dina ni ñëw gar ko lee ay lee ay lee. ma ne kon daama sa ndox ma de incha allah fii moom. lii de wax dëgg fi yàlla moom. maanaam li ñu jàng tey Noor Daara nekk ay gis boog ay moowaay boog mu xaddiman moo bëri. Daara ni moom lañ waroon a waaj. Daara ni oh Daara ni ndatar. moo fi tax a daal noor leer na am na si firnde firnde ngeen <laughs> firnde nii. ah. laa bëgg a tawal sax kay du. lépp daaw laa ko waaw loolee daaw lay nii yëpp. war a waay. parce allah yi bon lu mag. ndeysaan xool li ci gën a garaaw nag nee nañ. Ah. dañu gis seen gis benn benn yeew ci ndox mi. waaw li ci gën a garaaw wóor na yàlla. wóor na yàlla du caaxaan. Aliou Bégane. yow